salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi dama kontaan ci ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo yaa baax ci xale yu réew yi Azura mi ngi jooy naan dan ma xañ visa dan ma bëgg visa ñaadu du sa morom ñaa dafa am ay visa wam di dem fu ko neex te Pastef ko ñaa taxawaayu RTS la fu ne lay dem di dem fu ne di gisee fu te moom ak Jomay léegi nii lañ def nii mais ñaa doon it non ñaaxarañ loo moo mën a nekk Sénégal du seen morom il faut ñu nangu ko il faut ngeen nangu waal kii ñaaxarañ euh, loo du seen morom. Asoura xam nga lu la yóbbee lii yaa ngi jooy ndax visa naan eh, waa Pastef yi ma la ñuy xeex ah, moo tax ñu jël ñaa ah na yóbbu ñaa dafa am ay visa wam te Pastef joxuñu ko ko ñaa fu ko neex lay dem Wally Seck mi nga songoon di ko saaga di ko wax lu ñaaw moo la jural lii Wally kenn du ko laal képp ku mës a laal Wally Ballago Seck torox ga l'artiste plus connu kenn du ko touché intouchable moo tax ñaa noq na leen noq yu wóor pëm muy ñaa xarañ doo salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi dama kontaan ci ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo yaa baax ci xale yu réew yi Azura mi ngi jooy naan dan ma xañ visa dan ma bëgg visa ñaa du sa morom ñaa dafa am ay visa wam di dem fu ko neex te Pastef ko ñaa taxawaayu RTS la taxawee fu ne lay dem di dem fu ne di gisee fu te moom ak Jomay léegi nii lañ def nii mais ñaa doon it non ñaaxarañ loo moo mën a nekk senegal du seen morom il faut ñu nangu ko il faut ngeen nangu waal kii ñaaxarañ euh, loo du seen morom. Asoura xam nga lu la yóbbee lii yaa ngi jooy ndax visa naan waa Pastef yi ma la ñuy xeex ah, moo tax ñu jël ñaa ah na yóbbu ñaa dafa am ay visa wam te Pastef joxuñu ko ko ñaa fa neex lay dem Wally Seck mi nga songoon di ko saaga di ko wax lu ñaaw moo la jural lii Wally kenn du ko laal képp ku mës a laal Wally Ballago sekk torox ga l'artiste plus connu yi kenn du ko touché intouchable moo tax ñaa noq na leen noq yu wóor pëm muy ñaa xarañ doo